internautes ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen dalal ci biir émission ñu ànd ceeg suñu ak ñu di actrice ñu xamee ko ci télé réalité nga xam ne ñu ngi xaw actuellement actuellement ni euh, ñu ngi koy fekk fii Grand Yoff muy muy association bi nga xamante ne mooy association des comédiens de Grand Yoff ba pare nekk meilleure actrice de 2019 ñu am mbégte dalal moom donc ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a pour man euh, xanaa man aussi ma dellu man tam di leen delloo njukkal bu baax a te xam ne aw ma lu leen ëpp ñoom aw ma lu ëpp Grand Yoff ma lu ëpp Arafat mais aw ma lu ëpp Sénégal bu yàlla dogalee nga jël yenn activiste de l'année te ñu ëlbati ko suñu ma sargal du ma def lii di leen delloo njukkal bu baax a baax ne am naa mbégte ak association mi ngi ak léegi normalement war na am am objectif bi lan la woon lan moo bi c' euh, était juste yi nga xam ne ñoo nekk biir Grand te amuñu possibilité dem ci arcos yi di répéter euh, di jaabante passe bi aller retour tous les jours dafay xaw a donc pourquoi pas en tant que euh, Grand Yoffois ñu organiser benn association tuddee ko association des artistes comédiens de Grand Yoff. uuf suñuy rakk uuf suñuy mag si possible jàppale xale yi euh, culture Grand Yoff mën a jëm ci kanam. ñu soo gis ne xam nañ bu baax fierté la ci wàllu euh, cinéma bu ñu wax euh, tey waa Grand Yoff la ñu mën a xaar ci. loo xam ne dañ naan bu ko sëy actrice nekk Mbacke ñaar bi loo waa Grand Yoff nag li ñu mën a xaar ci man wax yàlla bari na li may wax toujours aw ma lu dul euh, Grand Yoff du amul lu dul euh, ku amul lu dul neew neew rek ngay ngay bëgg lekk donc euh, man Grand Yoff laa am lépp lu ma am encore bi Grand Yoff lay duggaat parce que guddi guddi Grand Yoff lay fanaan may wax toujours rek nañ ma xaar ci yu bari rawatina ci les enfants de la rue yi nga xamante franchement sama mbébét la nag xaw ma lu yàlla di def ëllëg mais dama bokk ci ñi nga xam ne dañu yëg trop trop xale donc sama mbébét la pour que su ma mënee am benn aspark bu ndaw boo xam ne wax dëgg yàlla mën naa faa def dara euh, di fa xale yi nga xam ne ñooy les enfants de la rue loolu sama mbébét affaire bu ndaw maa ngi dox sama kéemtalaay kattan parce que bépp ITV boo xam ne am naa ko rek wax naa ko ci pour bonne volonté yi nga xam ne ñu ngi may dégg ñu mën a am possibilité tendre ma la mais man aussi ma ñëw jàkkaarloo ak ñoom ñu waxtaan xool li ñuy def rek pour ba nga xamante ni Grand Yoff dootul amati euh, de Grand jeu li ma ci bëgg wax dëgg yàlla xaw na taxu tuuti mais euh, yàlla baax am beneen taxawaay ci si société rawatina na Yoff nga xam ne am benn nit ñi dañu am benn benn vision bi soo nee Grand Yoff rek noo jàpp rek ay dindaal xam nga ñu ñu tekki ñu dara ay agressé ay bandi franchement comme ni ko gars yi di xoolee parce que ba ñuy dem ci benn Grand Yoff laa dëkk ñu ne eh te Grand Yoff na jàmm ay nit ñu baax du bësee bu ngi nii moom moo jël meilleure actrice 2018 2019 Grand Yoff dëkk tey waa Grand Yoff dajale moo euh, nga xam ne boo nee Grand Yoff rek dañ naan ko Grand te Grand Yoff ah nga tey euh, Grand Yoff euh, wax jooju man pour man wax ju yàqu la parce que tey ñi fiy ñëw di def ay ñaawteef pratiquement boo ci xoolee ñëpp kenn ci ñoom dëkkul Grand Yoff kenn ci ñoom dafa am aramu fi sax faf daf luwewul donc te loolu yaakaar naa ne dëkk yëpp la mais li may wax de Grand Yoff tey Grand Yoff mënoo wàññi 10 ci corps de métier bu nekk te tuddoo benn doomu Grand Yoff kon nekk wax yàlla ñu bay seen waax ci wàllu wa xam ne ci la ñu amul kenn ku fi nekk nag nekk yaa amul donc Grand may wax encore une fois de plus ay nit ñu baax ñoo fi dëkk ay responsable ñoo fi dëkk ay nit yu bëgg dara ñoo fi dëkk ay nit yu bëgg defar seen gox ñoo fi dëkk donc bu ñu ëlbati ko di wax leneen lu loolu du ñu mën lu dul rek muñ teg lépp ci loxo yàlla mais li am solo daal mooy kenn ku ci nekk ca wàllu wa nga nekk yaa ngi prouvé. ci wàllu wa nga nekk yaa ngi prouvé mu nekk par li nga xam mais tey en tant que femme de développement euh, tey nekk sa biir gox naka la ñuy lancé sa morom jigéen nekk ban message la ñuy lancé ak ci biir marché bi nga xam ne moom la koy sàmm ci xanaa ñu yàlla ñu yokk góorgóorlu. yokku jàpp seen i borom kër yokku jàpp seen i kër yokku wane preuve de patience surtout parce que jigéen aussi foog nga am patience donc ñu euh, yokk daal góorgóorlu ci wàll bépp boo xam ne war nañ ci mën a ne dañu euh, continuer encore di naan ñaari loxo mooy takk du mais ñaari loxo mooy takk sër ñu futteeku ci dëkk bi liggéey jigéen da ngay da ngay liggéey da ngay def c'est am important ci ci jigéen bu am njaboot wala ci jigéen bu nekk. man je pense que loolu fépp la ci corps de métier yëpp am ah mais juste que man li may wax toujours du ma leen blâmer benn yoon au contraire li am solo ba am solo rek mooy nit ki boo ko defalee casting ba jël ko ci sa liggéey mu lay liggéeyal ba pare yow en tant que réalisateur war nga mën a am euh, cest war nga nekk roi ci sa ci plateau ba nga xamante ne nii euh, lépp luñ fa teg avant montage avant dara nga war ko mën a euh, corriger ba ba même bu fekkee ne mën-mën ni mën-mën bi taxu koo doon lool mu de ni mu la gisee da lay dawale te métier bi dafa nekk métier bu noo am rawatina ci jigéen mais li am solo ba am solo mooy nit bul nangu euh, bëgg métier bi na la métier bi bëgg d'abord nga embrasser ko su ko defee seen ànd day mën a neex mais bu fekkee yow yaa uniquement parce que da bëgg métier bi euh, bëggoo métier bi mais da nga bëgg feeñ da nga bëgg siiw da nga bëgg jouer ci lu nekk te kutoo kut tey laa xëy rek bëgg feen télé war naa mën a dem gis naa fee ñuy tourné ma woo leen dugal leen ma dimbali leen ma nangam ak nangam ak nangam kooku bu lay jël en tant que artiste da lay jël en tant que jigéen joo xam ne da bëgg feeñ donc bu keroog gànna bu la ca fekk franchement daal di accepté parce que ay chantage lay di taxaw parce que dañuy ne kii bëgg dara li mu bëgg rek mooy feeñ donc pour mu feeñ mën na jaar fii mën na jaar mais li may wax jigéen toujours yoonu aar dafa gudd dafa yàgg il faut nga am patience mais nag bu yàlla mayee patience aussi mooy na la yàlla jox xolu muñ mooy na la yàlla jox fulla ak fayda goo xamante ne nii foo jëm mooy doon sa arme et que man je pense après li ci des yëpp ay ay détails yoo xam ne da nga koy merci tey soo ñu doon suñu suñu waxoon tey li sa adduna loo xam ne tey marqué na la boo toogee sa carrière sa carrière bi nga def euh, duñ ko xalaat. soit mu neex la soit mu naqari la wax. waaw li ma gën a neex franchement mooy premier jour bi ma annoncé la dama am sélection bu war a bi. ñuy wax suuf si. là dama yuuxu parce que euh, koo xam ne mi ngi nekk ci théâtre pendant plus de plus de 15 ans am benn téléfilm bu war a tourné c' est pas c' est pas facile du donc autant c' était comme ça da ngay nekk ci troupe bi di mbapat mais euh, chance boobu loolu lay wax xale yi naa leen chance bi ñu amoon ñun. yéen amu leen ko da ngeen defe ne nag yéen ñu ëpp chance parce que yéen a dugg tey ci théâtre feeñ tey du chance chance bi mooy nga mbapat. ndax tey mën nañu wax ne atteindre nga sa dama naan am leen rêve sama rêve mooy euh, li ma doon wër ci ci théâtre cest ma am euh, loo xam ne dama koy joxoñ ne lii théâtre moom ko waaw jël nga fi meilleure actrice sargal nañ loolu macha allah loolu man non yooyu yëpp ci rêve bi la bokk mais xam nga man li ma gën a ñor rek mooy li may wax toujours man dama nekk euh, euh, nit koo xam ne dafa fonk xale trop dama bëgg xale trop donc lii sama bokk sama rêve ma am ko ci métier bi jël tabax offrir ko euh, à nos enfants ne lii sama rêve la am naa ko ci maanaam li ñu ko ci ak en tant que citoyen patriote sa leer mooy jàppale ndaw ñi soutenir xale yi. loolu moom sama leer la bu baax sa leer dafa la yàlla ko yàlla la la ci yàlla jàppale mais est-ce que sëñ bi ñu la ciy dundal. macha allah kooku moom mention spéciale à lui et euh, di ko wax toujours que ne je l'aime je l'adore et je l'embrasse partout parce que aw ma lu ko ëpp ci àddina waaye sama si jagana. mais am am wax star la dafa siiw génn télé ba. Euh, waaw waaw waaw xam nga nag monsieur Diakhoune moom daa passé problème daal parce que jigéen joo xam ne da nga ko takk fekk ko ci milieu bi euh, bu la neexee aussi nga ne non non doo ko continuer te kon it ay waxam waaw rek lay sant mais yàlla daf ma suturaal ba ki ma am dafa ma comprendre de telle sorte que lépp loo xam ne dama koy yëngu ci sama wàllu métier daf ma daf naa dem daf ci jàppale bu bëree bëri parce que dëgg yàlla. sa mot la fin nga woo te ñi nga xam ne yaakaar nañu soo leen woowee dinañ la jàppale ci ci combat nga xam ne yaa ngi koy suuf bu yomb métti na nag mais en la fin mooy am naa contentement tey di remercier ñëpp wax dëgg yàlla ñi fi ñëw ñëpp mais aussi di wax euh, à l' suñ ma mën a jàppale ñu jàppale ma di woo sama mère mooy euh, monsieur ma Diop li nga xamante ne nii macha allah c'est un frère pour moi di ko remercier bu baax a baax di ko encourager di ko wax ne en tout naa samay loxo lu mu ci mën man xam naa ne dina ko ci def ndax man miy wax monitrice la des collectivités éducatives mais moom encadreur la boo xam ne nii xale rek aussi moo ko ñor. ko moom quoi. ah moom kese actrice bu